léegi nag dañuy dem seeti Yaya Jammeh ca Gambie Gambia people xool nan lay mujjee nuyu nañ ki nga xam ne mooy Ami Fall Chéri Blin Pa Ben léegi sama copain ngi ni Gambia people Gambia to this is Gambia people maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant dinañ wax ne diggante Sénégal ak Gambie dama bëgg mu tax bandang yes bëgguma histoire am diggante Sénégal ak Gambie ndax because so Macky Sall xale la kon ma nekk xale kon moom ñu bokk génération advers promotion jàmm ak li nga mooy congrégation félicitation bi nga ne maa ngi ko mooy dama bëgg yéen waa Gambie ngeen jàpp Sénégalais bu nekk kon ndax Macky Sall dañu bokk génération daf ma bugg a tey àll ta ma bugg a tey àll ta wowuma ki nekkoon de seen président bi Abdoulaye Wade wowuma ka bëgguma ko de waaye maanaam ak Macky Sall dañu génération ñoo bokk ak jamono dinañu mun a defante digalante te dinaa ko jàppale bu soobee yàlla bugguma benn yoon Gambia people ñu am histoire ak waa Sénégal ndax benn la am na ku sant Ndiaye Sénégal am na ku sant Ndiaye fii Gambia am na ku sant Diop Gambia I'm not consultant job Senegal because Gambia and people his entire administration to people morning is Gambia fourth phase and engagement Senegal is Gambia first one ñu def ñaari réew ñu nekk benn nday bokk benn baay bañ a wax waxu seytaane bañ a dugal suñu diggante yéen caa yi nga xam ne yéen a nekk ak yi nga xam ne yéen a nekk Gambia dikalante dugalante bugante yàlla def jama ci diggante Sénégal ak Gambia te jama googu dina am ndax man ci sama solo ni nga xam ne moom laa colo lu weex rek jama Macky Sall wax naa ko naa sol lu weex di tulli ci yàlla ci yorante bi di ñaan jama yàlla dina la ko so people Gambia adversity to people Gambia to resist in this Gambia people yàlla baax na ndax keneen ku dul yàlla rek mu am Gambia incha allah dinaa ko liggéey soo di ko liggéey soo di ko liggéey ba mu mel na New York Macky Sall dina liggéey Dakar di liggéey ba mu nekk Paris dinaa liggéey Gambia di liggéey Gambia ba mu nekk Highland London Sweden ñu bokkandey ba ko bàyyi so Gambia people is this is Gambia to live and people invest in si si ne de na ay yéen Gambia to live is his kissing feet and wait and, and to, to is willing and God is to need any eyes fit Gambia not eat to peace. Gambia people to waste is gentlemen. Gambia people to various is given. I don't know si xees maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant gis naa ni ngeen jàppee suma anniversaire bi yéen ñëpp ngeen ngeen am contentement di leen amin haadija tuusis Gambia ñu ñoo bokk nday ñoo bokk baay so ñoo bokk nday ñoo bokk baay dama bëgg Gambia yëpp ngeen koo xam ku baax la li mu di lifinti diggante Sénégal Gambia rek taxal diggante bi la waxul lu ñaaw waxul bon ngeen bàyyi ko mu nekk si dëkk bi ndax dundal xol doomu aadama yàlla moo wax ku bégal doomu aadama bégal la te ku bi incha dinaa wax ambassadeur bi nekk Sénégal foofu mu jox ma numéro téléphone ma mu nii mu noos <laughs> ndax xam naa ne ku ñaa ku ko woo Gambie nga jox ko xaalis danga kontaan so Gambia people it is it is living this Serekunda to live and Gambia happy birthday to you happy to you happy birthday to you from Yaya happy birthday to you sa kontaan naa trop léegi xale mu wàll sama diggante Kouthia nañu doon rawee gis mun nga ñëw Gàmbi nga tuga militaire yi dar nga tuga nga lekk nga noos ba teel dañu xam ne yow la yàlla moo gis ñaari nit mu nurale ko man nangu naa ne ak man people Gambia foo tuga Gàmbi bul fay loo tuga bul fay gis bu rafet jëlal man maa la ko man yaya jànqa boo gis Gambia rek rafet na may naa la ko Gambia people the places is this in Venice is Gambia to people and how is this is Gambia every day yoo is this yàlla buur la léegi <laughs> nag yéen waa Gambie jànga yi nga xam ne ñoo nekk Gambie na ngeen préparé xam ne ma ñëwee yéen ñëpp laay takk ci mbuus yéen a yóbboo yaya ay yaya moo na mi yaya yaya ja people of Gambia, ladies and gentlemen, and Gambia people. Represent Gambia, Gambia people.